invité woon ma ci à ce que ma ñëw éclaircir leen wax leen lan mooy projet bi en même temps ñi àndoon aussi ak la madame le maire Fatou Ndiaye ñu waroon waxtaane projet bi euh, nga xam ne moom le président de la République yëkkati pour employabilité des jeunes muy projet de financement bi ñu doon ci waxtaan loolu moo waraloon jotaay bi ñu ñëwoon fi nag leerale leen lan mooy projet employabilité des jeunes par l' apprentissage muy projet boo xam ni état da ko def ci enveloppe bu 30 milliards war ci euh, former euh, 32 000 apprentis yoo xam ne ñi ngi nekk ci 8 corps de métier 8 corps de métier lañ tànnagum mais projet bi concerné na 12 corps de métier lu mat mille maîtres artisans war ci mën a bénéficier muy projet boo xam ne première phase bi jàll na ñi war a entamer deuxième phase bi ma ñëwoon nag pour leeral lañ leen projet bi. waa loolu aussi wax nañ ci sànq ci biir détail bi parce que euh, xam nga fu mel ni antenne bi chambre de métier. bëgg artisans yi di jot ay information moo tax département bu nañu créé fa antenne donc mais xam nga tey ku mel ni man nga xam maa jiite département Pikine bu ma bëggee atelier bu nekk information bu wàcc ma dem fa joxe ko fa dafay jafe moo tax lu mel ni lii Xalifa def mooy li ñu mën a jàppale suñu liggéey gox bu nekk dajaloo artisans yi fa nekk dajaloo nekk ci benn kuréel goo xam ni information bu wàcc boo ko joxee président am rek da koy mën a organisation yo fa nek ñi dem di ci bok ci association yi bu fekkee association communale ci commune bi nga dem bok ci bu dee association départementale la nga bok loolu dafay tax bu information jógee chambre de métier buñ ko joxee les présidents rek automatiquement membres yëpp dañ koy am à temps. est que gis nga ñu créé. ak hmm. artisan yooyu loolu ñuy def hmm. dina tax information bi yegg. waaw dina tax information yi mais xam nga information aussi tam nit ki da koy uti tam parce que artisanat ñun li ñu gën a sonal mooy.

boo ah, ah, euh, département bi nga nekk nga fexe ba jege antenne bi boo jegee antenne bi fexe ba euh, xam la bu ko defee loolu dina tax ba information boo xam ne ñëw na rek ci antenne bi yow di nga ci jot. di woo artisan yi à ce tam ñu ñëw chambre de métier ñoom ñëpp ndax artisan la gaa dëgg la waaye artisan moom li koy mën a firndeel mooy nga yor sa carte professionnelle bi wane ne yow mii artisan nga te loolu aussi tam artisan yu bëri dañ koy des ginnaaw donc jërëjëf.